suñu ñëwee ci combat euh, revanche bi ma ñëw ci Balla Gaye ak euh, Bombardier. waaw Balla Gaye Bombardier Balla Gaye si biir waxam nee woon na wéeru woon moo ñu daan comme wér na te maa ngis ay vidéo am maa ngi gis façon communication ok kon laamu jooju moom neex na te te dinaa ci dolli seen premier combat bi ko Bombardier daane bi ñu ne wérul dafa ne na dem faju ji ba tane mu ñëwaat. te Bombardier moom kenn du ko wax état. mosut a te boosi làmb da koy jël motuwaay day jël da ci jël léppam waaye bii moom na si contact bu baax a baax xam ne dina bëri xeex bi du bëri. moom Bombardier. mu contact waaw na ut ay poids lourd ak poids se yoo xam ne poids lourd mooy jàppante pour force bi poids léger ñoo koy may mouvement. waaw ay mouvement yoo xam ne danga def parce que ki muy bëreel day mouvement mu bay doyaat te foo ko yaakaaree mun na génnee feneen fu du foofu parce que Balla Gaye ndaanaan la te ni ma gisee ñëwaatam bi am na lu mu bëgg ci combat bi. combat boobu day dekkil làmb lii fi des mooy tey corona bi yàlla na gaaw jeex làmb yi nga gis signature yi. moom dafay jógee. ok ñëwaguma ci ñëwagu ñëwagoo ci Balla la mooy avantage am ci làmb. li avantage mooy bëre du xeexkat muy bëre muy jàpp daf li mu defoon ci ay bombar eh, yiki nekk yooyu loolu mooy avantage am bombardier nag li avantage mooy yoot nànk li muy def rek na koy defee ak xel mu dal maanaam ak lant. waaw parce que dafa gaaw am na lu mu mëne ni mu demoon bii passé mun na bañ a demee waat noonu. parce que bii kii day pare du ragal Balla du ragal te bu géemoon bëri day bëri ji xeex bi dañuy nax nii rek waaye du xeexkat